ca la ñu yore yi bu ko defee ñu waajal seen bopp ci joŋante yi. si biir commission ñu samp si biir mairie bu Dakar Plateau ñoo ngi wéyal opération yi ñeel jëlum carte électeur yi ndox tel ba xawoon na yéex. waaye fan yi électeurs yi tàmbali nañ di ñëw di jël seeni carte tey de dama ñëwoon dagg sama liggéey yëpp pour ñëw jël sama pièce rek ndax dama bëgg a voté ji ndax citoyen laa dama war a voté pièce baa ngi nii jox nañ ma ko ni ma ko bëggee woon ba ñu tàmbalee opération yi fukki fan ak benn ci weeru janvier gi ñu génn commission yi nekk ci commune bu Dakar Plateau gi yëpp jot nañoo joxe ay junni junni carte électeur ci kàddu sous-préfet docteur Djibi Diallo. Euh, ancien stock yi nga xam te maanaam ñi defoon ñi ci refonte 2016 bi seen carte te jëluñ ko woon ba léegi ñeenti junni carte ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ñeenti carte ñoo fi nekkoon ci biir loolu Euh, joxe nañ ci daje ci semaine bi téeméer ak euh, euh, juróom-ñaar fukk ak juróom-benn carte léegi ci stock bu bees bi mooy ñu nga xamante ne maanaam ñu mujjee inscrire loolu amoon nañ fi donc 7860 carte ci biir loolu donc joxe nañ ci ñeenti junni carte ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent. mu ngi ñaax rek sénégalais yi ñu daw jëli seen i carte électeur laata yi la opération di jeex. élection yi c'est le 25 février. retrait carte yi mu ngi yem le 24 février 2024 si yàlla àndee donc képp ku jël sa carte ba le 24 jot bu weesoo dootoo mën a jël sa carte. fii si commune bu Dakar Plateau jàppaleen ni daan am lu tolloog ñaari téeméeri bureau de vote ak juróom benn fukk sous préfet moo ko xamle ñaar fukki fan ak juróom si weeru février gi ñu dëppmal lu ëpp juróom benn million yu électeurs daa daañu leen xaar si bañ gàcc yi ñu war a tabb seen ëpp njiitu réew si ñaar fukki candidat yi sam seen nënd.